vraiment ils ont fait leur temps lu mel ni ak sax nañ ci dégalaat yeneen ak yeneen ak yeneen est-ce qu'ils ont pas fait leur temps c'est-à-dire actuellement dans le futur nii ci nga xam fi euh, ko mënuñ jàppee noonu ku nekk c'est vrai que am na appréciation ci situation du PS di di dund mais xam nga nous sommes des des des républicains nous sommes des des hommes d'État euh, je l'ai rappelé tout à l'heure ko wax naa ni que ñun Euh, suñu kàddu bu ñu tënk. ñu ànd président Macky Sall te aussi ñu décider dans le parti que souverainement euh, jox jox suñu kàddu président Macky Sall souverainement ne ko comme ñu tànnal incha allah dañ ko dañ ko valider te loolu instance yi ku mel ni euh, bureau politique ak le secrétaire exécutif national ñoo ñoo validé choix boobu. mais est-ce que PS war na mën a est-ce que PS war na mën a war na mën a toll foofu dem ba nekk un. benn opposant koo xam ne Macky Sall c'était un opposant avant lu yàgg yàggul dara donc est ce toll foo xam ne un parti boo lu mel ni PS toll foo xam ne day dem ba benn instant boo xam dafay jël benn opposant koo xam c'est un ancien opposant maintenant vous êtes kooku nga koy bàyyil mu lay tànnal un candidat yow ngay tekk ci ngay nekk ci ginnaawam Amadou nous sommes en politique waaw ouais. et comme je l'ai dit le parti socialiste est un parti souverain uh-huh. qui qui a son agenda de ses choix. De Donc, nous avons fait un choix. Et le choix, pour nous, euh, euh, c'est Amadouba. Et cette question la est déjà euh, euh réglée. Mm. Maintenant, comme je dis, on peut, comme tout Sénégalais, euh, dañ koy dégg, mm. ah, wax ni nous avons un candidat, mm-hmm. il est vrai. Nous avons mooy parti socialiste, un candidat, mais jàpp avons depuis samedi, le parti socialiste, na candidat, mm-hmm. même si nous avons peut-être qui, euh, ci ci rend au parti socialiste, mais loolu yëpp ay débat yoo xam ne dañ koy dégg xam nga c'est un débat xam ne il faut être honnête dans la vie mm-hmm. on euh, c'est pas ça ça vaut pas la peine di occulter yenn réalités yi lu mm-hmm. ñu gënoon ñun man en tant que socialiste c'est d'avoir un candidat socialiste mm-hmm. mais nag xam nga dañu nekk ci benn réel politique boo xam ne ni dañu nekk ci benn coalition boo xam ne nii euh, loolu aussi il faut le prendre en compte lu am solo mooy le président Macky Sall am na liggéey bu am solo bu muy def di ko def ànd ak ci benn bokk yaakaar boo xam ne nii depuis douze ans ñu ngi ànd ak muy ànd nawle ànd gor ànd boo xam ne ni am na lu mu def ci réew mi. te loolu moom ñëpp gis nañ ko. loolu continuité boobu. te ñu bokk ci ñu ñu ñu bokk ci bilan Macky war ko war ko war ko défendre. parce que <laughs> bilan bi moom wax dëgg neex yàlla ci lañ bokk. donc su nekkee noonu la euh, te ñu bëgg aussi pérenniser liggéey boobu xam ne Macky Sall commencé na ko ci réew mi war ko continuer mais pour nous euh, au-delà de nos personnes. c'est d'abord le Sénégal. Sénégal boobu nag moom la moom moom la ñu moom la ñu jiital. Euh, euh, jiitaluñu suñu intérêt bopp. dañ jiital intérêt Sénégal te jàpp nañ ni avec euh, le président Amadou Ba incha allah jàpp nañ ñi Sénégal aussi dina mën a defaat yeneen jéego maintenant maintenant il est vrai que dans notre parti et loolu dañ ko dañ ko waxaat te yàggatul sax dañ ci dañ ko dañ ko waxaat. il est temps que non seulement au niveau de du renouvellement du personnel politique. de notre parti dañ ko waxaat. au niveau quand de de de de de de, de certaines réalités dans le parti il faut que quand ñu dut ci baaraam parce que ñun ay euh, ay de sommes des responsables on ne dit tout est tout est bon tout est rose il faut il faut voir les choses euh, euh, ñu gis ko te am na loo xam ne moom dañ dañ ko waxtaanee yàggatul mais loolu su. waxtaan biir néeg lay doon. waaw waxtaan biir néeg lay doon d'abord. Mhm. mais lu wóor ba wóor mooy que ni euh, euh, euh, dañu dégg parce que am na loo xam ne ni dañ jàpp nañ. mënul continuer mënul mënul continuer.